bisu départu oreer yi war a dem ca Guinée ci gaaraasu Bignona bi nekkee ci Grand Yoff gaaraas bi daal fees dell ak nit saak walis ak yeneen ci ay bagages yu ñu daal dee teg ci suuf Ibrahima Ndiaye daal dee ñëw gunge ab xaritam bu war a amal bile voyage ci biti bu mu taxaw muy tàggatoo ak moom laata horaire bi di départ. waaw moom laa gunge si woon day war a dem Guinée quoi. Ndakaaru ba Guinée doon voyage bu daal dee sori lool tax ba Ibrahima Ndiaye di ama xel ñaar ci kaaraange xaritam bile ci kaw tali bi diirub bile nañu jaaxal quoi si chauffeur yi seen comportement actuellement nii quoi il fait n'importe quoi si tali bi. Euh, demee si guddi. mi war a def voyage bi tax ba xaritam bi am wàcc naka ci horaire bi. ngir fekk siñu moom xale bu góor bi ni accident bi am ci 6 ci kafrin daal dinay metti loolu waaye taxul nag muy tiit. garage bi garage bu yàgg la nekkul ay chauffeur yu ndaw ñoo fi nekk ay chauffeur yu mag ñoo fi nekk quoi am nañu expérience moom man moom awma si ragal boobu noonu quoi. ci biir bus bi yeneen ci ay passage yiy soogaa yéeg di continuer di jël place. marchand ambulant yi tamit ci biir bus bi di profiter di jaay seeni bagaas Alpha Omar Camara moom daal dinay jël place ba noppi mu ni xelam nag amul lenn lu muy sikk sàkk ci voyage bi mu war a def fii ba Guinée ñaari fan kese gannaaw bi fanweer ak juróom-ñeent ci ay nit ñàkkee seen bakken ci accident bu ñaari bus daal daje dajee. voyage bi daa neex allah parce que chauffeur yi professionnel la. accident bu metti bi am ca Kaffrine daal nekk ci xelu voyageurs yëpp waaye taxul nag mu nekk loo xamante ni jur na si ñoom tiitaange ngir ñu mën a amal seen voyage fii ba Guinée gënu jëm. jërëjëf ndongo ñu daal di waxtaanee ba tey accident Kaffrine beeg la mu am ne ay njeexite ci yëngu-yëngu yu yi waa Onde Gësëm ak intersyndical collectivité territoriale moon grève beneen ñetti fan waaye dañu ko daal di dàq ba jëmmi jamono euh, ndax tiis wi Sénégal nekkee terewul ñu ne bu keroogee fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier daanu daal euh, reprendre seen activité ñuy wéy di ñaawlu rek li nga xamante ni mooy doxalinu ministère fonction publique fàttali ne xeex bi ngir ñu wàccoog accord yi woon seen digg ak gouvernement bu Sénégal duñu ko dakkal ñu ne conférence de presse la ko xamle ci teewaayu Dieye Diop ngir RFM. ginnaaw accident bi faat fanweer ak juróom-ñeent ci ay bakkan coalition bu ànd gësëm ak intersyndicale collectivité territoriale fas yéene nañoo dakkal lépp luy seen yëngu-yëngu mbaalo jo caam mooy njiital ànd gësëm. comme que day national la méga bi daf ci sukkandiku pour dàq juróom-ñetteelu plan d'action muy nekk grève ñetti fan bu ñu waroon commencé fukki fan ak benn fan ak ñaar ci weeru janvier ñoom mënuñoo sàmmanteeg accord yi ñu xaatimoon ba nagani sii. ñi ay naataangoo lañ àndaloon di xeex gouvernement bi jox ñenn ñi mais joxul dara dara dara ñi nekk ci collectivité territoriale dañ ñëwoon dañuy xayma liggéeykat yi ñaat lañ toll pour fay leen wante ñun waxoon nañ bu yàgg ne loolu caaxaan la parce que boo dee fay nit weer wu dee boo ko waree yokkal te yokkal bi sax jógul ci sa poche ci nguur la jógee war nga mën a farlu ba xam ñooñu ñaat lañu nga jox leen seen xaalis. Sidiya Ndiaye ma ngay dànkaafu nguurug Sénégal ci ni ñuy recruter naka noonu dàq gu jaarul yoon gi nga xam ne am na ci biir mairie yi. ay licenciement abusif sur la base des trucs partisans nañu xam ne loolu c'est pas possible recrutement abusif yi aussi comme le maire de Diaroumé dafa ñëw fekk huit agents mu ne day génne huit agents yi te boobu moom nga jaar si ginnaaw recruter ñeneen le maire de la Médina dañu dem grève mu jox demande d'explication à tous les agents loolu kenn mosu ko gis loolu nag ñu ngi xaar la suite logique. ñuy nag dellu si di ŋàññ taxawaayu jëwriñ bu yees bi ñu dénk wàllu fonction publique bi la coalition ne balaa yàgg dara daanu sóobuwaat ci seenub xeex Mballo Dia Thiam. dàq nañu grève bi ba semaine bii di ñëw ñu ngi koy def euh, janvier. ginnaaw bi ñu jébbalee seenub njaal intersyndical collectivité territoriale ak waa ànd gësëm ñi ngi gën di sàkku ci askanu Sénégal ñuy wéy di maye seen deret jagleel ko ñi am ay gaañu gaañu ci bile accident. jërëjëf euh, soxna Dieng Diop euh, mbootaayu syndicat geneen euh, di CSA confédération syndicat autonome du Sénégal ñoom nag lu jëm ci wàllu yokkuteem carburant bi ñaari fan ci ginnaaw rafetlu wuñu ko danoo jàpp sax ne dogal la bu lalawul ci xel ak gouvernement beeg jamono mi wax wiri wàññi dund gi dañu ciy déglu secrétaire général syndicat bi wala boog mbootaayu syndicat bi di Elimane Diouf Elimane Diouf ak Mamadou Diagne. loolu moom dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax yokkute bi nga xam ne gouvernement bi décidé na ko ci carburant bi parce que bu ngeen fàttalikoo ñetti weer ci gannaaw bi gouvernement bu bees bi ñëwee président lim jiitaloon mooy nan la ñuy def ba wàññi njëg def nañ ay mesures naam mais mesures yooyu am na ci yoo xam ne jotaguñ ko appliqué buñ ñëwee tey nga xam ne énergie mooy facteur bi nga xam ne bu buñ ko yokkee rek day yóbbaale lu bëri bu loolu amee jaaxal nañ ñu koy naqarlu di ko dénoncer di woon ak gouvernement bi mu xoolaat parce que lépp loo xam ne war na mën a améliorer pouvoir d'achat wu liggéeykat yi pouvoir d'achat population Sénégal yokkute yi moom bokkul ci loo xam ne dina ko yombal e lépp luñ defoon ci ay subvention lépp luñ mën a def ci wàññi train de vie wu état pour permettre maintenir subvention yooyu ba ba Sénégal xëy na di commencer produire pétrole ak gaz yaakaar naa ne gouvernement bi war na ko def surtout période bi ñu ne nga xam ne ñu ngi ci incertitude yu bëri lu mu mën def ba maintenir subvention yooyu vraiment ñu bañ a yokk yenn yokk carburant yi ñu def ko vraiment appel boobu la ñu def. Elimane Diouf njiital mbootaayu syndicat autonome du Sénégal CSA RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. guleet ci Sénégal daara ju kawee ñu def li nga xamante ni mooy appel candidature maanaam fexe ba daal di woo képp ku bëgg a doon njiital daara ji ngir nga daal di indi say dossier ñu def cegg gi loole dab université Gaston Berger bu Saint-Louis appel à candidature bu ñu bari nag wala ñëpp lu ne ay universitaire Ousseynou Diop ci wàllu reportage. université Gaston Berger bu Ndar appel à la ñu def ngir mën fal bu yees jàppa ni bokk na ci li nga xamante ni mooy gën a doxal université bii université dangay ñëw déposé fa sa këyit ñu saytu ko bu baax a baax xool ñetti profil yi nga xam ne méngoo naat sunu gis-gis méngoo naat sunu ay vision na la sosé bu SAES jàpp ni loolee bu fekkee ni am na dina gën a tax lu jëm ci wàllu alalu réew mi ñu koy yaxanal mu gis ni sax ñoom lii bokk na ci xeex bu mag boo xamante ni sumboon nañ ko. xam ne euh, lépp li nga xam ne euh, alalu réew mi moo ci dem ay structure publique ñun jël nit ki nga xam ne moo gën a xarañ gën a jub gën a baax pour ñu jëlee. ñoom ñi nekk ci rectorat gis ni loolee dina tax ki nga xamante ni mooy recteur bu bees bi mën a ubbeeku waaye tamit defal liggéeyam ci na mu waree. recteur bi ñëw mu mun a mun a am projet mu mun a am programme. recteur bu université Gaston Berger bu Ndar ci appel ak candidature lañ koy tabbe ginnaaw ñi nekk ci université bi bu ñu saytoo yi ba pare ministère bi yore lépp lu jëm ci wàllu njàng mu kawe mi lañ koy jébbal ñett ñi nga xamante ñoo ci jiitu président Macky Sall mooy tànn ka nga xamante ne moo ko ci doy mu rek koy tabb mu doon recteur bu université Gaston Berger bu Ndar Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou jërëjëf ñu waxtaanee koom-koom ak kër koppar gi di Fonds monétaire international. Euh, fukk euh, wala boog téeméer téeméer ak fanweer ak ñetti milliards 133 milliards la génneel Sénégal anam yi génne win week euh, li ko waral ak jëfandikoo gi leeral ci wàllu koom ak Mamadou Oumar Ba. conseil d'administration bu FMI jeexal lël bi mu doon def ci wàllu leble ak lu xëytoog loolu waxtaan yooye ñu jagleel ko Sénégal ci pàcc gu yaa ci njeexital bi FMI nangu débloqué luy tolloog téeméer ak fanweer ak ñetti milliards ci suñuy koppar kuréel gi di fàttali ne xam na bu baax ni Sénégal ci ay jafe-jafe la nekk njëgu dund gi yokk ak courant gi ci waaj a tegu dollar gi yéeg a ko wàcc lépp am njeexital ci koom-koomu Sénégal jafe-jafe yooyu yépp waral ba croissance bi itam doxe ginnaaw 4,7 pour cent kilifa yi dogu woon ci ne dinañu téye déficit budgétaire bi di gafaka réew mi ci 6,2 pour cent ci PIB at wi ñu génn FMI gis ni Sénégal mi ngi góor góorgóorlu waral ba li mu yor ci ay bor bu ko fayul ba mu jeex itam dina ci def jéego yu am solo kuréel gi ne am na yaakaar bu baax ci kilifa yi dem ba jeex ci koppar yi nga xam ni Cour des comptes fësal na ci ab rapport ne dañ ko war a leeral bëgg itam ñu jaare fa ni lépp luy dépense bu ñuy defati ñu gérer ko ci anam yu mucc ayib. sport geeg Youssouf Bodian Hadj Youssouf maa ngi lay ziar. di euh, fay Hadj Assane di nuyu ñëpp. ñu tàmbalee CHAN 2023 bi ci wàllu football ak Sénégal bi jeexal euh, ak waajalam ak victoire. démb lañu daan Congo benn bal ci dara ci match xaritoo bi ñu doon amal ci Tunisie euh, Lamine kamaxa bu kon génération foot moo dugal benn but bi Sénégal am ci match boobu coup franc direct la dugal ci cinquième minute de jeu. ba tax na kon ki leen di tàggat di Pape Thiaw euh, jàpp ni ndam bu am solo la euh, ci euh, confiance bi laata kon ñuy dugg ci CHAN lee ñu déglu Pape Thiaw. bon là on sort euh, euh, ñu ngi jógee ci match bu jafe lool ak équipe kongo boo xamante ni physiquement dañoo engagé woon baax moo tax sax ragaloon na euh, sama joueur yi amee gaañu gaañu waaye bon mujj naa jeex ci jàmm te soo gisee taxawaayu équipe Congo bi indil nañu ay jafe-jafe ci ndorteelu match bi waaye teel nañu dugal ak Lamine Camara waaye ci ginnaaw amul yoon efficacité ngir mën a dugalaat yeneen but. waaye ci fan yi mujj yi liggéey nañ ci bu baax a baax am naa yaakaar ni laata compétition bi dina ñu amal njëriñ nga ñe benn bal ci dara sooy jeexal ab stage lu baax la ci euh, confiance bi. Euh, c'est bien pour la confiance pour les joueurs. Pape Thiaw ci micro euh, cellule communication bu fédération sénégalaise bu football ginnaaw ndam bi Sénégal am démb ci kaw Congo benn bal ci dara ñu fàttali ni équipe bu Sénégal bi amaloon na ajuma ji passé match xarito digganteem ak Niger mu def 0-0. ñoom kon tey ci euh, tey euh, ci mardi bi la ñuy bàyyeekoo kon foofu euh, ca Tabarka ca Tunisie nga dem ca Annaba ca Algérie Sénégal dina fa amal matcham bu njëkk di match de groupe le 14 janvier seen digganteeg équipe bu Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire boobu la sax moom démb Mauritanie moo ko daan. ci match xaritoo ñetti bal ci dara ci match de préparation CHAN bi ba tey 0-0 diggante Madagascar ak Niger. wàllu football ba tey ak équipe bu France diggam ak Hugo Lloris jeex na. moom nag euh, nekkoon gardien bi nekkoon capitaine bi tamit euh, dafa xëy démb wax ni moom arrêté na kon carrière ak équipe de France am fanweeri at ak juróom-benn euh, nekk joueur bu Tottenham gardien bu Tottenham naataangoo kon bu Pape Matar Sarr di doomu Sénégal ki nekkoon kon léegi capitaine bu équipe de France moom cent cinq sélections maanaam li mu joué ak équipe bu France moo toll ci noonu téeméer ak ñeent juróomi yoon la joué. Euh, mu doon loo xamante ni kenn mësu ko def ak équipe de France mu daal di raw kon Liliane Thuram mu defee ko ci coupe du monde bi passé te France demoon ba final ñàkk digganteem ak Argentine Hugo Lloris kon euh, gañoon na lii di coupe du monde 2018 ak équipe de France. Gareth Bale moom nee na euh, bàyyi na football euh, moom fanweer at ak ñett la am moom doomu pays de Galles bi euh, nekkoon kon international waaye jëloon na retraite international am ginnaaw coupe du monde bi passé jaar ci Real Madrid jeexalee kon carrière am ca Los Angeles FC fa la nekkoon Gareth Bale kon daal di dugal ñeenti fukki bu 40 pour pays de Galles moom kon moo dax dugal ci histoire seen réew seen carrière day gàtt nag. effectivement 33 ans daal di bàyyi. <laughs> war nañu fent benn championnat euh, ñi nga xam ne bu ñu nee junior senior yi ñu wax xëy na papi yeeg yooyu daal. waaw <laughs> vétéran yi. <laughs> mu ngoog vétéran yi basketball ci wàllu jigéen ñi UCAD moom daal dina euh, retrouver première division. Euh, mooy beneen équipe bu université bu Ndakaaru ñoom kon ci championnat D2 bi ren ñoom ñoo jël kon ñaareelu place bi ñooy vice champion waaye yëg nañu ci kon première division waaye nag seen bébét mooy fexe rek lu ñu lépp lu ñu mën ngeen mën ci des ñoo ne ci ak am lu jëmoon ci tournoi monté bi nag am nu ci woon benn défaite lu dul final bi nga xamante ni moom nañu ñàkk UCAD nag ci noonee daal dinay réussir saison wam gannaaw ba mu amee tikketam gu koy yóbbu ci première division bi bu ñu sukkandikoo ca ka nga xam ne moom moo leen di tàggat di Mouhamadou Bamba Cissé. bi ñuy tàmbali saison bi euh, objectif bi moo doon au moins doon ñu mën a dellusiwaat donc ci première division bi depuis ci match de poule yi au niveau de Dakar ñoon benn match et donc ci final bi ñuy joué ñun ak donc foofu la ñuy soogee ñàkk match et comme déjà mën naa ni euh, objectif bi jotoon nañ ko atteindre bu baax la woon. mu di nag ab saison gu mucc ayib ngir équipe bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru bi ka leen di tàggat nag am yaakaar ni moom ak kii joueuse am daañu wëyal lu ni mel ci saison gii di ñëw. bon mooy ñu mën a toogaat euh, incha allah donc ci première division bi. xëy na peut-être bon ñu ngi soog a si équipe bi ñu yor amuñu expérience trop ay xale nañ yor ñëw ñu donc pour jéem a remporter ay trophées ren wala yu demee noonu bi donc jël match yi match par match après jéem a nag def tout nag donc ba toogaat bon ci euh, élite bi. Université Cheikh Anta bu Dakar nag fi nekk nii am na ñaari club ci élite féminine bi même sax bu fekkee ni am na tuuti différence ci diggante ñaari équipe yooyu le bu ñu sukkandikoo ba tey ci Mouhamadou Bamba Cissé. mooy que ñun ak Duc peut-être euh, nekkul équipe yoo xam ne donc dañu xaw a nuroo parce que ñun ci wàllu UCAD basket équipe bi fa nekk ay donc li nga xam donc donc ñoom bàyyi nañ ko en permettant surtout donc étudiants nga xam ne donc dañuy jógee ñëw voilà bon ñun ñu permettre leen xam nga donc ñu mën a donc di pratiquer sport donc ci biir université bi en continuant aussi donc di jàngale tamit. benn at gannaaw ba mu jógee woon première division bi UCAD kon dellu si waat na ci élite bi te fas yéene def lépp lu mu mën ngir mën cee des. Soor euh, jàpp jàppale ni kon championnat national euh, ci wàllum basket Sénégal le 21 janvier lañ jàpp ni lay door officiellement Hadja Sane. incha allah Youssouf maa ngi lay gërëm di la sant euh, bi. prions pour eux. Prions pour eux, prions pour tous ceux dont la vie a pris fin sur les routes bitumées et noires de Kafrine, maa leen di nuyu mbokk yi am mbégte àndaat ak Sénégal mu ngi ci tiis talaata ji méngoo ak euh, ñaareeli bis euh, deuil national bi nga xam ne moom le président de la République Macky Sall décrété euh, ngir delloo njukkal ñi ñàkk seeni bakkan ci accident bu metti am ci tali bi niki dimanche bi weesu ci boori Kaffrine artistes yu bëri ñoom itam daal ci yëkkati kàddu bokk na ci ñoom njiital ARCOTS association bi ëmb artiste comédien euh, yu théâtre sénégalais yi di Pape Faye mu ngi leen di euh, dédié puis les poèmes. heure yooyu accident bi amee heure yooyu fekk na ñu ngi ci waaj pour jël tali bi pour ñëw Dakar moo tax damay wax ni euh, ñii nekk ci tali bi di daw yor oto yi nañu def ndànk bu dee guddi li moo gën a doy waar ci nañu def ndànk te respecte code charte code la route yi. dama ci am wax dëgg yàlla benn euh, cër cër gi moo di ma depuis plus de vingt ans maa ngi ci euh, nouvelle prévention routière comme partenaire je suis pas un employé là-bas mais comme partenaire parce que Matar Faye mi nga xamante ni moo ko jiite ba mu créé nouvelle convention routière du Sénégal ba léegi man maa ko yoreel maa yor communication bi lépp lu ñu ciy def man maa koy def ba ci semaine nationale de la prévention routière bi ñu daan def barke démb rek rek rek rek rek maa ngi ci doon waxtaan ak moom fekk lii amagul maa ne ko Matar il faut que ñu def delluwaat ci semaine de la prévention routière yi ñu daan def lu am solo la parce que defoon nañ ko créer même au niveau des établissements ay club de la prévention routière ak yeneen xew-xew yi nga xamante ni dafay mobiliser ay nit dëkk ak dëkk dañ ciy liggéey waaw dañ ciy liggéey ak waa nouvelle prévention routière du Sénégal liggéey bu am solo moo tax ñu war ko dekkilaat waaye nag du tali bi rek de dafa am war a am ay mesures de sécurité hmm? bon jaww ji am na ay catastrophe yoo xamante ni kenn mosu ko ñaan yàlla sunu borom bi waaye nag yàlla doxal waaw euh, yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel kon nag pour rek Sénégalais yi bàyyi seen xel ci ni tali bi dafa am ay normes nañ ko respecté loolu rekk la waaw man wax naa aussi en tant qu'ambassadeur de la paix et de la prospérité parce que suñu cër la itam ñuy artu ñi nga xamante ni ñooy dawal ci bi. jëye nag mu ngi amee ñeenti fan laata ñu door juróom-ñetteeli édition xew-xew bi ñu dippee All Africa Music Awards Afrima ci ab bataaxal njiital euh, xew-xew boobule mu ngi euh, mettitlu moom itam tiis bi dal ci kaw euh, askanu Sénégal waaye nag événement bi duñ ko fomb lu tollook ñeenti téeméeri artiste ñu leen di xaar fii ci Sénégal am na lu tolloog juróom-benni euh, woykat yu Sénégal yoo xam ne euh, dañ leen euh, nominé ci bile édition muy Sidi Diop Djeba Viviane Chidid Dip Doundou Guiss Wally Seck ak kii di Bass mbokk yi fii la yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi jaajëfal Fama John Koumba Sandiane Oumar Mbow ak ñépp ñi nga xamante ne taxaw nañ euh, ci euh, seen chronique culture waaye itam magazine euh, xalam ci diir bi nga xam ne moom la absenté woon di leen jaajëfal dig daje ëllëg incha allah. ñu lay jaajëfal yow it di la ñaanal reprise jàmm RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes ak ñeent. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Touba Darou Salam Karo Soumari.com Malaysia UMO Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf taal bu tëët ak wet gu ne nga koy uppee ñaar fukki mesure ak ñaar l'observateur ne nañu moom la état bu Sénégal ngir dakkal accident yu bari yi ci réew mi ubbil yéenekaay bi dogal yi démb lañ leen jël ca ndajam conseil interministériel ga ñu gonte woon ca jam ñaajo ca dogal yi yéenekaay bi ne nañu bokk na ci arrêté bu ministère des transports war a génnee fii ñetti fan mu di arrêté boo xam ne la cay nekk mooy oto bu ñu indeete ci transporter ay doomu aadama woto yooyee amatuñu droit daw diggante 23 heures mu di 11 heures ci guddi ba 5 heures du matin pënay occasion yi dootuñu duggati ci réew mi chauffeur si dawal wata transport yi bu dee ay nit nga yeb doo am permis bi li fekk amoo ñaar fukkeet ak juróom bu dee wata ba nga yor transport marchandise la doo am permis bi te amoo ñaar fukkeet ak ñett le témoigné nañu ginnaaw fukki commandement yi ñu fi waxoon ngir ne dañuy wàññi accident yi te mujjul officier supérieur ngir muy saytu doxalinu code de ci réew mi vox populi bind na état bu sénégal teg na ñaar fukki mesure ak ñaar yu wow kong ngir dakkal nit ñu bari ñiy faatu ci tali bi ci accident soleil national nañu mesure yi bi sénégal jër ngir wàññi accident yi ëpp nañu ñaar fukki mesure ak ñaar ñaar fukki mesure ak ñett lañu journal l'info di ñu wax ci xëtamu njëkk ne nguurug sénégal génne na leraw gi ngir tàllal nu na rak ñi ci kaw a def ñaareel bi di ku deful yoon ñu rëq sa ndigg suddu tënk wax ji ci ñaar di xamal ne premier ministre Amadou Ba génne na yat wi téye ci bi beneen loxo ba mu téye fa carotte wa di tam-tamal transporteur yi accident bu mitti ba am keroog ci 6 kilo ci yoonu Kaffrine yi Le Quotidien nee nañu tiis waa ngay gën di dis gann ci askan yi waaye nag solidarité gu mat sëkk feeñ na ci ci ñi wanek solidarité source mi ngi ñuy wax ne sang bu tedd ba ca Touba ràññeeku na ci ñeen fukki million moom la Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général génnee ngir jàppale ko ñi loru ci accident bi accident bu 6 kilo bi ñaari kaar yëmbëkk njëkkante enquête ba ñuy def ci accident ba libération nee nañu yu garaaw garaaw feeña ci enquête ba yëral xët mu njëkko yéenekaay bi bis bi ñu ne moom la ab pënam toj yéenekaay bi nee nañu enquête ba wane na amul woon assurance am na ay rëq-rëq yu enquêteurs yi gis ci visite technique bu ñaari bus yi ba tax ñi nga xam ne ñoo moom yi enquêteurs yi woolu nañu leen tey ji ci suba tey ci suba journal l'Observateur dafa xëy seeti ay nit yoo xam ne accident de la miti na miti boo xam ne heure bu xëyee faatu rek lay bëgg Mamadou Faye adjoint mu mu hospitalisé ñetti at bi mu mu di defi moo di waa bu association gi ëmb ñu accident ci réew mi Mamadou Niang nee na ba mu accidenté ca la ñàkk loxo ndeyjooram ca la ko jabaram wanee ginnaaw ne dafa dem yóbbaale ay doomam ñu des ci kaw tali ba léegi waaye ci weneen anam journal Le Mandat ak la Sénégal xibaar bi ñu defaroon yi nee nañu ñoo ko siiwal keroog ci am ndaje mu muntagaas yi maire bu ay relaawo séqoon ak askan wa ca jéeri lu ëpp téeméeri chef de village ay conseillers municipaux ay kilifa diine ay kilifa aada kilifa àddina yu fekk baax ca tund wa yoon woowee ak ni mu meloon tiitaange ga ci askanu jéeri ji amoon léegi tey mu jeex ma jeexale ak histoire bu doy warte daw yaram bi ñu doon àtte ca tribunal flagrant délit bu ndakaaru ubbil sursuwa ne Fatimata Njaay dane gis bi damay jigéen ju sësul ci kenn am juróom-benni doom fa ma dëkkoon luye fa dañ ma faa génnee ndax damaa amee ay arrière location bëggoon naa jëlub néeg waaye fu ma dem ba wax ak borom kër gi bu xamee ne damaa yor juróom-benni doom du nangoo luye ab néeg procureur be kàddu yu mu yëkkati jagleel ko Fatimata Njaay yéene bi nee nañu moo di dane man mi maa la mandat dépôt waaye nag aw ma woon pexe ndax dangaa jàddu yoon mu ne ko bi nga ma expliqué sa histoire wax ma ni mbiri demee sama xol dafa tooy ba bi ma demee sama kër sax sama xel mi ngi woon ci yow CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Touba daaru Salam Karo Soumari.com Malaysia Yomo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM lu jege ñaar fukk wala lu ko ëpp ñaar fukk ak ñett ci ay dogal yoo xamante ni njiitu euh, réew mi wala boog gouvernement bi ngeen baal ma jaar ci premier ministre jël nañ ko démb cim ndaje ci jam ñaajo ngir wàññi bu baax accident ci réew mi bokk na ci tere circulation bi auto transport yi li ko tàmbalee 11h ci guddi gi 23h ba 5h du matin dañuy gaare loolu la ñu sàkku ci ñoom ñu moytu it euh, jële gi euh, ay pneu bitim réew pneu yu ñu jëfandikoo ba noppi yu bon Euh, ak it wàllug euh, porte bagage yeeg euh, ni nga xamante ni noonee lay déséquilibré wote yi bokkoon it ci liy jur accident accident yu métti yoo xamante ni du fi baax lu may tiis njàqare ak lii di tumuranke ci njaboot yi fanweer ak juróom bakkan yu keroog ca yoonu boytolloo ak ñibbi ca Kaffrine ca fanweer ak juróom-ñeent ya fanweer ak ñaar rek la ñu ràññeegum seeni néew juróom-ñaar ya des ba tey xamu xamuñu ñooy ñan téeméer ak ñeent fukk ci ñu amee ay gaañu gaañu fukk ya sonn lool mooy bilan bi tukkee ci ministère bi ñu dénk wàllu wér yaram accident boobee nag euh, tax na euh, waa euh, coalition intersyndicale travailleurs collectivités territoriales seen lëngu ak ànd gësëm daal di dakkalandi lépp lu yëngu ci wàllum seen syndicat ñu ngi doon wéy di amali grève ngir di sàkku ñu ne accord yi syndicat ak nguur gi ak doxale am ci danañ ko toxal ba bu keroogee fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier jàpp fukkeelu fan baak juróom-ñeent université Gaston Berger bu Ndar moom dañoo def lii di appel à candidature maanaam defab yéene ngir ku bëgg doon njiit ca université boobee nga cee indi teg bu ko defee ñu amal segg gi xool ki gën maanaam <laughs> meilleur profil bi Abdoulaye sa dossier moom boo ko fa yóbboo ci Youssou Ndour la la gars yi di kalaame si <laughs> ñu yendu ak jàmm. Nouvelle